xool ba léegi nii ñuy wax man de gis gisuma décision. waaw d'ailleurs d'ailleurs parce que loolu justice mooy fonctionner noonu euh, te Sénégal nag ministre de la justice mënul wax juge bi eh jox ma sama décision eh defal lii eh jaaral fii eh defal lii déedéet. mais mais mais ci sa ci sa connaissance euh, su code pénal xam nga dafa am un débat autour d'un délai euh, délai au terme du du duquel si le prisonnier si le si l'accusé ne se constitue pas prisonnier la condamnation devient sans appel. ak les ak après les procédures se se poursuivent y a-t-il un délai de dix jours. non xam nga affaire yi yomb na suñ ko bëggee compliqué rek mu compliqué dañu condamné Ousmane Sonko par contumace mooy biñ koy jugé ñëwul ñaar ñi moom ñëw nañu moo tax def nañu appel ñi fa nekkoon def nañu appel moom ñëwul ku ñëwul mënoo def appel loolu article 312 du code pénal moo koy wax. ñu ni léegi suñu la condamné par contumace am nga choix soit nga constitué wu prisonnier wala état bi parquet parquet exécuter peine bi ñu jàpp la yóbbu la kaso soo constitué wu prisonnier wala ñu jàpp la yóbbu la kaso am nga fukki fan fukki fan pour xalaat fukki fan pour xalaat ndax da ngay d'accord condamnation bi ne dëgg la li ngeen ma condamné d'accord naa ci ànd naa ci wala da ngay def opposition du appel de opposition soo ko defee mooy ñooñu la jugé woon mun nañ la jugé waat wala ci tribunal bi ñu jël ñeneen ñu jugé waat la ba du nekk appel foofu lañ lay jugé ma baamtuwaat suñ la condamné par contumace décision bi suñ la ko notifié décision bi suñ la ko notifié ba xam ko yow décision am nga choix en tant que constitué wu prisonnier wala parquet bi exécuté jàpp la soo constitué prisonnier wala parquet bi jàpp la am nga fukki fan fukki fan su la neexee nga ne ànd naa ci maa ngi purgé sama peine wala nga ne ànduma ci tribunal bi ci boppam ña ma jugé woon wala ñeneen waaye ci biir tribunal bi da ngeen may jugé waat soo xasee bu ñëwaat rek kii bi moom daanu na condamnation par contumace daanu na daanu na complètement dañuy reprendre procédure dañuy reprendre procédure léegi léegi xam nga moom simple na. léegi mais da ngay dégg yi procureur bi moom moo war a procureur bi moom moo war a def. la la la la la la publication. waaw ah, la la publication. waaw notification. alors génn nañ dix jours yi. non non ah, man dama découragé dix jours yi li ma jox yëpp ko. non ma ma ndax dix jour yi mat na non amul dix jours. amul 10 jours. 10 jours yi lan laa la ci wax yow tam professeur laa nag yenn saa yi dama la waxee peut damay xool ndax li ma wax jàpp nga ko. 10 jours da nga ne tu le à 10 jours. non pour comment ça 10 jours. à un délai de 10 jours pour accepter. voilà wala pour se constituer prisonnier. très bien à la notification. waaw non. donc notification bi am na wala amul. amul décision amul donc notification amagul su décision bi génne xaaral xaaral nañ nañ récapituler. Mhm. man notification de la décision. Est-ce que la décision a été notifiée non. au condamné, au contumax Non. Ça n'a pas été notifié. Ah, ah. <laughs> Non, da nga wax au contumax. Non. Non, damay kii Première étape, donc de la décision. Deuxième étape, après notification de la décision, le condamné se constitue prisonnier ou la peine lui est appliquée par le par les soins du parquet il se constitue prisonnier ou la peine lui est appliquée par les soins du parquet. et pour a deuxième étape lañu nekk man damay jàngale. Mhm. troisième étape il a dix jours troisième étape il a dix jours. ok constituer au prisonnier wala ñu jàpp ko am dix jours pour acquiescer ou refuser dix jours su dix jours yi passé te acquiescer wul mooy accepté na su dix jours yi passé nag. quatrième étape mu ne acquiescé wu ma day contester décision bi opposition lay def su defee opposition mooy quatrième étape bi ñu rejugé waat affaire bi par la même juridiction voire la même composition cinquième étape mun na am foofu confirmation de la peine wala infirmation de la peine leer na. Mm-hmm. donc on n'en est pas là. yeggaguñ sax ci première étape bi y' a pas encore notification. Euh, de de l' acte de de, de jugement. waaw léegi démb euh, on a parlé de la.